charge Euh, ku ci am tuuti crédit rek mën nga télécharger. orange bi moom pare na. orange bi moom pare na mën nga def. 201 01 ba dem déglu. 201 01 ñoo mën a innové waa orange. alors ah, ah, ah, Pape donc euh, ce journal l'observateur mm-hmm. bu tey. bu tey bi ak mën nga jour yëpp ñëw jour yëpp ñëw en tout cas merci beaucoup. voilà merci d'être passé sur le plateau le week-end stade. voilà euh, parewuma ba tey ci Gallo Cello en attendant Amina Poté lay xaar mu yegg si fi nga xam ne moom moo di ci plateau bi. Mm-hmm. pareeguma ak Gallo Cello mm-hmm. alors Gallo Cello xam nga dañu waxal wax dañu su tabaski ñëwee rek suñu xel ci moom lay dem dama bëgg dellu en attendant l'arrivée de Amina Poté sur le plateau de Weekend Start en direct sur la route des Almadies rond Brioche Dorée bi nekk ci Almadies alors tout de suite encore une deuxième fois. Let's go. Close. Share. Let's go, man. guitar and travel international Let's go, man. Next, I have the privilege of celebrating Mr. Laminga and Patrick Drum. Yeah, let's go, man. Let's go. One, two, Latino rhyme one time ago. Yes, guys, and you all, you'll be like I did it. spectateurs en ligne c'était Gallo Cello allô allô ah non je l'ai perdu allô allo je l'ai perdu alors le temps de mi ngi yegsi mi ngi ci yoon bi elle sera là dans quelques instants alors euh, nous étions en direct sur la route des Almadies Amina Poté mi ngi yegsi dans quelques minutes alors 88 628 09 09 le euh, ah Poté dafa mel ni 4-4 bii di ñëw Amina ci nekk alors euh, Rock Mbalax laa leen di proposer le temps d'installer Amina Poté c'est maintenant alors Demba Dia alias Rock Mbalax alors Mbalax bi attention ah Rock Mbalax xam nga tey dama la ah. ma jël ko ci ligne bi pare allo. allo Boubou ça va. ça va et vous. ça va bien. maam Anta maam Anta foo ñu woowee. parcelle. Parcelles Assainies. waaw. unité. 24. unité 24 naka mu. ça va. jënd nga xar ba pare. jëndaguma dara bu maa ngi di xaar yàlla. déedéet. yow maa ngi yow yem man poobar rek laa amagum poobar. billaahi man aw yow sax am nga lool man aw ma poobar aw ma kaani aw ma dara maa ngi di xaar yàlla. amoo poobar amoo kaani amoo laaj. amaguma dara. maa sama njaboot mi ngi toog di xaar la di xaar yàlla yàlla xam nga ni dina ñëw la moom. ah waa incha allah dina ñëw moom. Ah, yàlla moom moom xam nga ni dina ñëw. te tabaski moom mu ndegam moo ko santaane dina ci jàpp. wallaahi yal na yàlla def li gën rek. amin amin amin maa ngi kontaan bu baax a baax a baax naka waa. parcelle la gën a bu ça ya sant yàlla bu baax a baax a baax a baax. Oh là là, je l'ai perdu. Ah là là, Mamanta. En tout cas, merci d'avoir appelé en direct dans Weekend Start. Alors, euh, Amina Poté, euh, le Nikhar. Madame Lendi proposer d'abord Rock Mbalax, Demba Dialias, Rock Mbalax. Un souvenir d'abord. Et puis, en attendant, Amina Poté di wàcc ci 4 xam nga moom comme dafa bëri salañ salañ. comme temps yi nag gars yi 4-4 lañ koy dugal di ko escorter di ko yóbbu muy ànd ay garde du corps. Poté ngoog euh, di ñëw euh, ñu dugg woon leen ki nga xam ne moom moo di euh, Demba Dia alias Rock Mbalax. sama ni mapi mudu wote Digatobe nebe, digatobe gal Digatobe nime, digatobe Enen bani yandane likadale dinan Sopawa yanti kala kabarde yumumkar Digatobe nebe, digatobe gal Digatobe nime, digatobe gal Rosmara, yauna téléspectateur en ligne allo allo. allo waaw Boubacar. waaw ku baax naka nga def. maa ngi fi rek ça sant yàlla noo tudd. man Astou laa tudd. Astou foo ñu woowee. waaw maa ngi wootee jàmm gën. naka waa jàmm gën Astou. ñëpp a ngi fi ñu ngi lay nuyu. mbaa ñëpp a ngi si jàmm. maa ngi seetaan rajo kii eh, télé télé TFM. waaw gis nga. ngi lay suivre am nga xar. aw xar de. waaw man de man poobar rek laa amagum. yow dégg naa nga ne poobar nga am. poobar. man damaa bëgg nga jëndal ma xar yow wala Youssou Ndour. man wala Youssou Ndour ñu jëndal la xar. waaw. xanaa ma wax ko papa Youssou. ah sa jarbaat yi de li ñu tabaski moom. da déet waay loolu moom ëpp na. ah tabaski de ndax amuñu poobar sax waxatuma la xar. ah bon. waaw xanaa may leen ci sama poobar bi tuuti. ah ma ci mën a yónnee xëy na dina defal lépp. poobar bi moom li ma ci am bari na moom. ah. poobar bi moom lu bari laa ci am mën naa am mbuusu mbuusu dërëm xar laa bëgg xar xar. ah xar nga bëgg waaw kon xaaral ma ñëw xool papa Youssou ñu lijjanti allo ayo ah, kii dañ ko war a lijjanti leen tam dañu war a lijjanti ak papa Youssou mu jox ko xar jox ko xar xar ko xar Amina Poté salaamaaleykum. maaleykum salaam boobu sunuy naa la. na nga def. sant yàlla. waaw Poté dama dégg ni dafa am ay xar yoo xam ne dañuy poosé hanche ñu wax ko ma ne Poté demal nga seetal ma gël tàppe xar yi poosé hanche xar yi poosé gis nga leen. Boubchou ren xar yi posé ange defe naa moom lañ sotti ci dëkk bi. posé ange. waaw xam nga ange nit a daan monté mais léegi xar yi ñooy monté ange. waaw lu tax xar yi lu ñu jub borom xar yi lu ñu jublu ci loolu. xam naa dañuy yéex yar seen xar yi ba tabaski ñëw te tabaski ren bi nit ñi yëgoon nañ ko mais dafa xaw a bette. chaque jour day bette ba lënd bi muy doon day betti nit ñi parce que xaalis amul borom xar yi yëpp seen i xar seen i conteneur jënd ay conteneuru ange par benn benn la ñuy wàcce du monté. <laughs> Sénégal poté ngoog poté ngoog poté léegi dafa dem ba léegi buy dox dafa am ñoo xam ne dañ koy àndal ñu koy téye ma mais poté euh, gis naa tamit euh, waa ji nga doon waxtaanal sànq ci direct bi waa ji moom mu ne euh, quatre-vingt mille la yore ñu ko naan ay cent quinze mille ay kii mais lu tax gars nangu ñoo wàññi xar yi mais bub su fi nekk nii doy na waar daal hmm. man moom fi mu nekk maa ngi waxaale. 10 000 laay waxaale amagoo amagu ma maa ngi waxaale ki may waxaale maa ngi naan ko 10 000 mu naan ma non non. 10 000 néeg nga de. mais néegu ma xar mu monté ans yow boo ko rayee ans mi rek kilo éponge la boo ko rayee doo ci fekk dara bi. ah Poté dégg naa dégg xale yaa tàcc tàcc leen ah tàcc leen dégg naa dégg naa dégg naa dégg de ah waaw <laughs> ah, mën nga mën a yokk sa loxo 10 000 mënoo ci am xar. mën naa yokk 2500. affaire waa léegi kon nañ dindi ans yi ñu peese xar mi bu ma cinq kilos ma fay lu jaa lu jaadu. ah yow da nga bëgg ñu dem dindi ange yi demoon. ñu summi ange yi comme éponge la. Ah? ñu peser ma xar. kon yow da nga bëgg wax ne ñuy jaay xar ren dañuy nax ni ñi. bari na ci. Ah? bari na ci gisoo kon xaru chinois yi. xaru chinois yi moom gisuma ko mais dégg naa xar mu dee muñ dekkalaat la karu la di ñu lakk ba pare lañ waat ci biir <laughs> yal nañu yàlla musal ci loolu. xar mu dee ñu dekkalaat ko. waaw am na. waaw ñu leen jubal loolu chinois yi lu ñu jublu ci loolu. xam nga chinois yi moom chaque jour duñ ko yàq. parce que ah. dégg naa kii gën a tuuti ci chinois yi di nàmp montre lay fawee defar montre lay fawee. Ah. kon xar yi deqalaat xar mu dee. Ah, du dara ñu lekk ko ba mu jeex ñu dekkalaat ko monte ci biir dara ci ñoom. dëgg la pote dégg naa dëgg de xaw ma téléspectateur yi li ngeen xam ci lii maam Sira Konaté bu jëndee xaru chinois xar boo xam ni dafa dee ñu lekk ko ba pare chinois yi defaraat ko monté waat ko. monsieur si daal di dem ba centenaire daal di fa jënd xar xar genre genre xar boobu loolu compliqué na trop mais peut-être sa dugg ci bi daral bi jafewul woon ak talon yi. waaw xaw na jafe tuuti parce que xam nga ne daralu Abdou Salam Ndiaye du yomba temp di dugg ci biir. Hmm. parce que embouteillage bi mi ngi déparé ca rond ba. dëgg la. ba ci côté Brioche d'Or bi kon ba may dugg si metti na torop na mais man ba léegi pareegu ma ci xar bi de man maa ngi doon jënd xar. mais bu ci yow am nga dégg naa. noonu non amaguma man li ma waxaale bële la laa dund ma doon waxaale. mais sa poobar bu bari bi la nit ñi di waxtaanee ci dëkk bi bubs. ah man poobar de laa amagum. poobar ah? dina faj soj nag dina faj boo jotee nit. suy ko ci koñ de <laughs> loo dégg. coow li salaam. loolu nga yor <laughs> salaam salaam salaam léegi man bàyyi naa bàyyi naa bële xanaa dama bëgg ñëw Amina jàppale ma. bàyyi naa bële ma doon jëndal maam Diarra. léegi bii. man ak Amina Poté ñu àndandoo waxtaan ak yow. jubóog yow ci bii pour maam jaar. xoolal ange ba pare de. ma xool ndax montewul ange. ndax montewul ange.